Allah la ilaha illallah baax na Allah la ilaha illallah baax na Allah la ilaha baax na baax na Allah la ilaha ya Allah Allah la ilaha Allahumma Allah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Ili Mustafa Cheikh Cissé baax na Allah layla Cheikh Cissé baax na Allah layla Cheikh Mahi baax na Allah layla Cheikh Mahi baax na Allah layla Cheikh Mohammed baax na Allah layla Ya Allah Allah layla Ya Allah Allah layla Khalifa Imam Allah layla Cheikh Mohammed Allah layla baax na baax na lay Baba Cheikh baax na yaa faati baax na baba lamin baax na Cheikh Umar baax na jërëjëf Baye jërëjëf Baye Niass Zakir ni Amad ni Atijaan ni Mutumin Kaduna Atidumada Allah la ilaha suwan banshi Allah la ilaha adurama Allah la ilaha adita tasir Allah la ilaha inyas foto Allah la ilaha ingane gidana Allah la ilaha wana ne mana Allah la ilaha lamar mayata Allah la ilaha 080 Alalaida, three twenty. Alalaida, eight nine. Alalaida, four two nine. Alalaida, banda flash. Alalaida, bala so. Alalaida, if you want to call me. Alalaida, call me direct. Alalaida, not indirect. Alalaida, yalla. Alalaida, zakirni. Alalaida. la ilaha illallah Allah la ilaha Cissé Cissé Allah la ilaha Cissé Cissé Allah la ilaha Cissé Cissé Allah la ilaha Cissé Cissé Allah la ilaha Cissé Cissé Allah la ilaha Cissé Cissé Allah la ilaha Cissé Cissé Allah la ilaha Cissé Cissé Allah la ilaha Cissé Cissé Allah la ilaha sise sise shi ya bani ɗarika shi ya bani ɗarika tarbiya Allah la ilaha shi ya bar azkaru Allah la ilaha na gode Allah la ilaha na gode Allah la ilaha ya bar ni da sanka Allah la ilaha shi ni da sanka Allah la ilaha ka shi ni da sanka Allah la ilaha mutu a cikinka Allah la ilaha tashi cikinka Allah la ilaha ni shine fata na Allah la ilaha kar ka banni ala laila kar ka bani ala laila ba za ni iya ba ala laila ba za ni iya ba ala laila kas cuce ni ala laila kas cuce ni ala laila ka kara saya min ala laila ka kara saya min ala laila dan ya fati ala laila dan ya fati ala laila dan ya fati ala laila جسريتي على رأينا جسريتي على رأينا جسريتي على رأينا شيخ مرحمة على رأينا شيخ مرحمة على رأينا شيخ مرحمة على رأينا قارة يا عمرو على رأينا dan shehu tijjani dan shehu tijjani dan abul abbasi dan annabi muhammadu dan annabi muhammadu dan annabi muhammadu da ni da imamu ya Allah shehu tijjani sise la ya ja kwananka Allah ya kara karama ala la ilaha illa bashir ala la ilaha tijani anyar ala la ilaha ya kara karama ala la ilaha ya jafananka ala la ilaha ya da ya fati ala la ilaha ya da ya fati ala la ilaha ummul mu'minina ala la ilaha ya jafananka Allah ya ja kwananki sai Muhammadu mahi mahi in yasi Allah ya ja kwananku Baba Lamilu Allah ya ja kwananku ala la ilaha illallah ala la ilaha illallah ala la ilaha illallah ala la ilaha illallah ala la ilaha sheikh muhammad ala la ilaha khalifa imam ala la ilaha jafananka ala la ilaha jafananku ala la ilaha sheikh baye ala la ilaha sheikh baye ala la ilaha إلا الله لا لا إله إلا الله إليه مصطفى رسول الله اللهم صل على